mais euh, ci côté bobu non dama lay dag parce que mën naa ni Eliman moo gëna yor ay bagages techniques. surtout waaw ça aussi Ismaël, ci ben temps mom mën na mën na sonal défenseur bi waaw mën na ko sonal carrément déborder et tout mais genre dernier tiers mais en fait fofu da fay centre centram day yàqamti genre pour mom genre bu bu déborder rek non il doit faire le centre en fait des fois des fois il le fait il le fait il le fait ça passe pas il le fait mais des fois il doit attendre que son latéral lui dépasse qui dans la balle et et puis en plus c'est pas mën na mën na apporter benn supériorité numérique en fait parce que li mu dul nekk ci surface bi bariwul il traîne toujours dehors en fait day xaar day xaar ñu jox ko pour mën jouer waaye ci vitesse le le la le gën yakar que que que technique am en fait waaw y ça léegi quant à Iliman Ndiaye moom day bëgg a dugg ci surface bi waaye bëgg a une deux bëgg a et tout waaye waaye y ça c'est une différence loolu la en fait you